ginnaaw ni yow bi ñu sant leen bu baaxa a baax gërëm leen ànd beeg Aladji Malick TV am na solo lool ànd boobee yàlla na jëm kanam xibaar yu wér wér yi nga xam ne moom lañ leen di faram fàcceel bis bu ne xibaar yooyu ñu commencé ko ginnaaw publicité bu am njariñ bi gars yi Thiam Teranga automobile uh, bu jeexee jeex na uh, jàmbaari fàkk tëdd ji nga xam ne uh, jaay oto moo ci teg tànk ci ndakaaru bu ngeen déggee loolu mooy jub xocc gi nga xam ne moo jafee ñu bari jub googee loolu la ko yàlla sunu borom defal moo tax muy jaay oto oto yu yomb essance nag da koy def maanaam ga yorub oto bëgg koo dugalante dolli tuuti xaalis mu dàbbar ñi la bu baax a baax wala nga yor sa oto bëgg koo jaay jàmbaar jaa ngi taxaw dala koy jaay njëg goo xam ne gu mucc ayib la njëg xam ne gu yomb lay doon bu ko defee ci yow nga mën a jël sa xaalis wutaat ci yeneen soxla loolee da ciy dox bu baax a baax li nga xam ne nag moo jëm ci uh, parking bi nga xam ne yor na ko ma nga nekk fële uh, ca wetu stade uh, bi nga xam ne mooy Léopold Sédar Senghor ci miir bi bu ngeen ñëwee tableau baa nga ni fàng oto yi fay di taxaw lépp tolloo kon sama waa ji numéro téléphone yaa ngoogu yow mi nga xam ne yaa bëgg oto waaxul dem foofee bu fekkentee ni loolu jafe na la nga daal di koy woo téléphone whatsapp bi mu mel ni mbàccum gerte ngeen doxalante bu ko defee déggoo am mu livré sa la oto mën ngeen a bañ a gisante sax lépp nag tawféex la ak njub goo xam ne am na ko moo leen di may xibaar yu am solo yi ma nga noonee Arda Goulart di footballkat boo xam ne bu Turquie la commencé waat na gën nga tàggatu goo xam ne personnellement maanaam moom kese ma ngay ñëw di entraîner lu doy waar tey ji gën naa dabban ñi bu baax a baax ci li nga xam ni moo nekk Real Madrid Nampalys Mendy ñetti at ca FC Lens gonek sénégalais gi wërsëg la yor woo xam ni ñu ngi koy ñaanal loolu lépp doon taw féex ci moom ñetti at séngam la signé ab contrat boo xam ni ci digg militaire Lens ba loolee mooy mboq lay sol bu àndeeg dogalu borom bi na booba Sergio Ramos retour à la mission maanaam delloo na Ah, fële ca këram fukki at ak juróom-ñett ginnaaw bi doon nañ leen ko jaaba jonge xibaar yooyu doon leen ko digtal waaye loole nekk na lu officiel fi mu toll nii moom moomee ah, dana daje ak ancien clubam di Real Madrid Mbappé mooy meilleur buteuru ah, championnat France ak juróomi bit séngam gaa ñi jërë ngeen jëf